bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahumma inna nasaluka xayra ma fi hadal wa xayra ma baad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 jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara noo ngi woon démb ci alwaqtu fi xayaatil muslim tabaarakallaahu di lu am solo di lu am solo di lu am solo lool ma tolloon ci ni ñuy planifier sunu bés ma ñëwoon ci teel yeewu Hmm? ak teel tëdd teel a ak teel tëdd ñëwoon naa ci teela a ndékki xëy ci yi nga war a xëy fàggul sag njaboot te fexe ba doo ca dugal fàggu mu dëgganut fàggu mu dëgganut waaye ñun sunu réew dafa mel ni dañoo dañoo légaliser nit bu yor ak kees bu ko neexee këpp ko mbaa mu xàppati ca lekk noonu fi ne loolu dañ ko légaliser pénc mi waaye cey yow ma tub la sarair bés bu yàlla jàppee nit ñi di leen audité di leen audité ah wastaamarakum fiihaa jam waxoon muy seet ku ci nekk jumtukaay yim la joxoon ak pénc mi loo ci def est-ce que bokkoo ci ñi gàllankoor doxinu pénc bi est-ce que bokkoo ci ñi gàllankoor doxinu économie bi est-ce que doxoo ci gàllankoor doxinu social bi est-ce que bokkoo ci ñi gàllankoor doxinu wér-gi-yaram gi yooyu yëpp sunu borom da bu ñuy auditer daf nu koy laaj moo tax saxaaba ya sunu royukaay ya bu nu masaan ñëw ci mpénc ci daaw ñu xeeb mecc daaw ñu xeeb liggéey déedéet kenn ka def ne morom ji dama laa bëgg a dagal ci sama tool bi mu ne ko wan ma rek seen marché dëkk te bàyyi ma ak marché bi hmm? waaw wan ma seen marché bi dëkk bi rek te bàyyi ma ak marché bi daat na ca marché ba waaw na ca marché ba ci marché ba ba xëy am li ñëpp am waaw ba xëy rek am li ñëpp am mu ngoog su ko defee li ngay xëy nga fexe ba man ko li ngay xëy nga fexe ba man ko ndax saalixoona ah, dañu daan def bu ñu xëyee xëy ci dara yow itam boo xëyee xëyal ci dara waaye la ngay xëy na doon loo man bul volontaire pour def loo mënut waaw Maodo Faye nee na yàlla na ko yàlla yokk wér kuy def loo mënut ña lay seetaan yi njëkk sonn <laughs> wax na dëgg na kuy def loo mënut ña lay seetaan yi sonn waaw Xaj Malik Maodo Faye si defee moo koy wax kon nag lépp looy def na nekk loo man loo mënut ku la ko sant neel mënuma lii lii laa man inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay yàlla dafa bëgg lépp looy defar lépp looy def mu doon loo man waxaat ne feneen ci hadiis inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina képp kuy def dara na fekk muy lu man tabarkàllah waaye bëgg nga xaalis rek nga jéngu bëgg a def loo mënut ah bul ci dugg bokk na ci wartee fi jullit bi ci bëccëg bi te waru ko di fàtte ah mooy digganteem ak xidmatul mujtama digganteem xidmatul mujtama mooy li ngay liggéeyal sam réew li ngay liggéeyal sam pénc hmm, li ngay liggéeyal sam pénc ku ne dangaa war a xëy dugal sa loxo ci penc mi waaye li ëpp ci ñun seen bopp dong la ñuy xëyal waaye xëy ngay xëyal sa bopp war nga caa suuraale da ngaa war a xëyal sam penc société bi nga nekk da nga war di ko xëyal loolu lu am am solo la ah benn ginnaaw penc mi it afraad yi benn benn nit ñi nga di leen dimbali fi ne romb kuy puus ab otoom wala nga romb ko mu càng wala romb ko mu paan bu njëkk boo daan romb oto bu paan da ngay teggi sa tànk ne ko mbaa mbaa garawul mu ne dañoo paan ndox nga jël sam ndox jox ko wala ngeen xaajoo ndox mi léeg-léeg nga romb mbaa garawul mu ne dañoo dañoo kii fii nii kale diis lañ soxla nga ci jox leen ko léegi dañoo defee ne saa boo taxawee agresseur yi agressé la ba boo romboon ko paan ci àll bi danga nga naan fës dem wàcc ko mu ngoog barki dem damay netti si sëñ Mbàkke la yàlla na ko yàlla yokk wér et félicitation ci euh, émission bu bees boobu muy def ci guddi gi la ñëpp a ngi ciy bég ma ne ko sëñ Mbàkke damaa mas di tukki man dong ci oto bi ma romb jigéen ju yor doo ñaari doom ak ñaari saak romb naa ko lu ma ñaari kilomètre ba lu ko jege sama conscience muy ma ma dem damaa wëlbati koo foofa dellu si ba ci moom ne ko foo jëm mu ne ma barab sàng mën na ko yéegal nu ànd waaw parce que sama xel sama sama sama xel mi li ma doon wax ma lu tax nga romb kiitu yóbbuwoo ko te oto bi dara kenn nekku ci waaw ma wëlbatikuwaat ndeysaan ñëw jël ko <laughs> wàcce ko ndeysaan làmb sama poos ne ko ne yàlla maa ngi lay tuubal li ma romb kiitu yóbbuwuma ko waaw daal di jox ne ko na jëndalal xale yi miskit fii tt xamuma xamuma ko <laughs> ngeen baal ma ci misaal moom waaye dëgg la dama bëgg ak misaal rek ne nun ñëpp dañoo war di jàppalante yàlla li mu wàcc ci pénc mi ñun ñëpp a ko bokk nun ñëpp a ko bokk waaw li ci poche gaa yi Seydina Ali na ne yàllaa nga ko jële ci poche gaaya li ci nga ko jële ci poche gaa yi kon na waa ji delloo li ci po lewoon ca poche gaaya te yàlla def ko ci poche waa ji na ko waa yi sédd gaa yi waaw waaw <laughs> kenn mësu ko gis hmm? boo ko defee ngay jéem a fajal nit ñi seeni aajo yi nga man ndax léeg-léeg nit sant la loo man solo saw dal dem jéem ko ko fajal solo saw dal dem jéem ko ko fajal léeg-léeg mu jafe <laughs> léeg-léeg mu jafe ndax nit dalay dégg jàpp ne problème am bii war nga cee man dara ndeysaan waaye ni nga dégg problème bi nga daal di jàpp ne lii waroo cee man dara waaye boo gàntoo àdduna tukki nga ne ko nañ dem wala jox ma numéro téléphone moo tax dañuy encourager ak féliciter léeg-léeg ñi nga xam ne léeg-léeg yàlla nattooñu ñu ñu sol sunu daal la ñëw seen kër pour intervenir ñu comprendre nu ndeysaan nu comprendre nu waaw la ma imaam ji waxoon yàlla na ko yàlla sàmm fàtte naa turam waaye Diallo eh, la sant côté Grand Yoff la dëkk <laughs> waaw mu ñëw fa ndeysaan di di waxtaan si ak ngoro imaam ne ma <laughs> yow de mun naa mu ne ma nga dugg ci sama jàkk ji dugg sama kër gii di fuut loo amul mu ne mu ne ma fu ma koy waxee ndeysaan mu dal di ruus waaw mu daal di ruus ndeysaan dama bëgg a wax rek ne koo ci xam ne boo solee saw dàll intervenir mu sotti solal saw dàll yonent bi na nañuy doxalante yëf yooyu ku dox ci yëf yi nit bu ëllëg yàlla dox ci sa yëf te ku yàlla dox ci sa yëf sa yëpp dana dana faju insha allah su ko defee ñuy taxaw ci tas iru umur yi yi jafe gaa yi tu yomb la yow waaw ndax léeg-léeg mbir day jafe ji waaye yomb la yow waaw conteneur yi jóge bitim réew tey def ay bagage waaw bagage yooyu dafa xatal waa kër ga ñu génne ko ci mbedd mi mu ñëw ñun ñu fat ko parce que jariñ nañu waaw loo xëy sànni rek am na ko xam ni ko mu lay wër loolu lépp day nekk sadaqa waaw waaw day nekk salaa nan déglu yonent bi alayhi salaatu salaam jël nañ ci abu muusa mu ne ala kulli muslimin sadaqa ala kulli muslimin sadaqa mu ne kullu sulaama min annaasi alayhi sadaqa bërki démb la ko imaam euh, Cheikh Ahmad Tidiane Pouy ci jumaay cité prestation di di di di di noddu wala ngeen baal ma di di xutba addis bii la doon xutba yonent bi mu ne kullu sulaama min annaasi alayhi sadaqa kulla yawmin tatlacu fii shams nee na sunu sunu cër yi maanaam sa loxo bi ni muy bankoo ak tàllal ko sa noy gi ni muy dugge ak ni muy génne sa nob bi ni muy dégge ah, sa bët ni muy xoole sa tànk yi sa biir bi maanaam yonent bi nee na loolu lépp bu ci nekk daa war di génne impo bu ci nekk daa war di génne impo xam nga fi ne loo jënd ci pénc mi rek impo génn na ca jëm ci keesu euh, defe naa trésor su ma jumul waaw ndax li ngay jënd ci lañu lañ cay dompe ci lañu moom lañuy delloo ci courant bi defaraate ko tël yi euh, defaraate roñe ko mbalit mi ila axiri impôt yooyu nag la yonent baax ne sallallahu alayhi kenn ku nekk ñun waxul cër boo am waaye baaraam bi xam na xam nga ne am na ñetti lemu-lemu sa baaraam bi baaraam bu ci nekk am na ñetti lemu-lemu mën naa lemu ci tàmbali bi mën naa lemu ci digg bi mën naa lemu ci cat la lem-lem bu nekk nag fa mu toll sunu borom def na fa ay rëdd def na fa ay rëdd ngay lem lem ak a ci waaw fi ne jigéen boo xoolee loxoom war ngaa xam ñaata doom lay am jigéen yàlla def na ci secret loxoom bi bu ko tàllalee nii boo xoolee mën nga ne ko yow danga nga am nangami doom hmm? maa la ko wax waaw ci la ko yàlla bind mu ngi ci secret bu doy waar ci rëdd yi ci loxoy jigéen waaw ñu ko xam na xam nañ ko ñu ko xamul xamuñu ko loxob càmmoñ bi ay rëddëm léeg-léeg du bokk ak loxob ndeyjoor bi ay rëddëm xam naa xam ngeen daal ca empreinte ya tabarkàlla waaw te ku dekki sab loxo la yàlla delloo si mu ne kon kenn ku ne ñun war ngay génne impôt ci pour sa cër yooyu waaw impôt nok noy impôt gis impôt dégg waaw impôt banque loxo impôt tàllal ko banque sa tànk tàllal ko impôt dox ah impôt sàqar mi impôt wanaasu <laughs> tey ngeen sonu de walaay ndeysaan impôt wanaasu impôt nelaw waaw impôt dem ci toilette ya ci lépp war di fay impôt ah mu ne maa la ko wax te bu doon fekk bu fekkoon sunu borom bu ko privatisé bu ko sunu borom privatisé woon jenn waaye moom ko dakaar ku ku mere rek couper sa courant heureusement sunu baram xam na loolu mu yoral ko boppam saxaaba yi ne ko waaw loolu ku ko mën yaa Rasulullah loolu ku ko mën mu ne leen yaamal bi yadi koo xam ne kii xëy ngay liggéeye sa loxo loo ci amee boo ci jariñee sa bopp saraxe nga mu ne ñu ne ko ku munta liggéey mu ne mu dimbale ku am aajo loola sarax la mu ne boo gisul ku am aajo mu ne nga digle njekk ci penc mi waaw mu ne soo munta digle njekk mu ne nga téye saw làmmiñ loolu de xanaa yépp nag kenn du mënu ko bokk tële bi mu waxee imp yooyu ci sunu yaram yi mu ne taajalu bayna naasi boo fekkee ñaar ñu bijoo réeroo nga defare leen génne nga ab sarax boo fexee ba état état ak syndicat état ak syndicat xam naa seenu juboo du yomb waaye mu tane mu tane ndeysaan na ko suñ mbokk Mamadou Diop daan waxee yëngu te yëngal waaye mu hmm? diggante sëri taalibe yi ci seen bopp sëriñ si seen bopp ministère yeeg gouverneur yi nangam nangam ilimaan yeeg maamoom yi yépp maanaam daal taadilu bayna isnayn loola boo ko defee génneel nga impôt sa cër yi boo dimbalee rajul fii daa bëti ku war aw fas mbaa mbaam mbaa gëléem mbaam war oto mbaa scooter nga fekk ko mu am problème nga dimbale ku ca joxe nga impôt wax naa ko sànq nag li ëpp ci nit ñi bu ñu masaan romb oto bu paan dañuy taxaw jàppale borom waaye léegi da romb rek lu tax parce que dañ naan agresseur yaa ngi fa la ñoom seen yooyu waaw léeg-léeg nga wàcc rek war a woon a wàcc léeg-léeg nga yóbbaale war a woon a yóbbaale waaw ndeysaan nee na boo jàppalee nit muy war ci dara ba mu war maanaam romboon ku yéeg ci oto bi mënut yéeg nga jàppale ko ba mu yéeg wala oto ba paan wala tabarkalla paan essence wala ñàkk ndox wala nangam nangam nga dimbale ko ci sax nee na loolu jox nga impôt wala nit ne ci suuf ne la jot li ma sama lii wala nga topp ci nit mu wadd dara nga yëkkati ko jox ko yooyu yëpp ca la bokk wal kalimatu tayiba baat bu yiw kaddu gu yiw wal gu yiw yonent bi nee na moo tax sun mag ñu yiwoon ay kàddu lañu te daan ko jàngale allahu akbar ñoom daawuñu wax sëriñ bi day nelaw mukk ñoom dañ koo diisal waaw sëriñ bi day dallu lañuy wax <laughs> waaw ñoom dañ daawuñu wax sëriñ bi yeewoogut déedéet boobu ñoom sëriñ bi ubbeegut la ñuy wax ñoom daawuñu wax sëriñ bi day jooy déedéet sëriñ bi day tuur ay leer la ñuy wax waaw daawuñu wax sëriñ bi il est déedéet tamshiha ila salaa sadaqa jéego boo jéggi jëm ca jàkka ja yëgal ne sarax la jéego boo jéggi rek jëm ci jàkk ji rek yëgal ne yàlla bindal na la ci ab sarax romb luy gaañe ci mbedd mi ngi àndal ko sarax la waaw sarax la waaw sunu mbokk ma la ca Casamance al asandiir la nga gis ku muy dawal oto mu yàgg mu droite ndànk wàcc dem àndal dara ñëwaat yéeg taal dem ma ne ko ëw oh, waaw noonu la koy defee seet <laughs> mbokk yi temps daal lu am solo la temps ka am solo waaye yëgal na yooyu la yonent bi def lépp bàyyi ci xel xëy nga yaa ngi liggéey nag na ci liggéey ba mu yàgg jant bi jàngar bi ku nga dégg xaya ala salaa bàyyi li nga doon def te jéema a julli fii awalil waxti ndax nga am ridwaanullahi ngërëmul yàlla nga jéema julli fii awalil waxti ndax nga am ridwaanullahi ngërëmul yàlla waaw te yàlla moo ne woon njëkkalante leen lu baax yonent bi ne ne suñu wootee xayaala salaat te ñëw leen ca jàkk ja mu ne jaral na ko mu lakk kër yi ñu dul julli ci jàkk ja kon nag lu marché bi neex-neex lu cantine bi xumb-xumb boo dégg xayaala salaat tëjal lépp te dem ndax jamono ngi ñëw danga ko tëj loolu moo tax jullik mbooloo ëpp jullik kenn ci ñaar fukki degré ak ñaar juróom-ñaar rawatina bu nekkee ci jàkk ja nga julli ci ñëw treize jot ba teg trente jàpp quatorze nga daal di lekk maanaam nga añ te nga fexee añee lu lew waaw bul ëppal ca añ ba ndax ëppal cib añ mën naa jur nga tayal ci jëfaat ci lis ci ngoon gi yaa bani aadam xusu zinatakum inda kulli masjid muy benn wa muy ñaar washrabu muy ñett wala tusrifu muy ñeent yàlla ne na bani aadam ñu ne ko ha mu ne ku ci julli ji ci yéen na waaj kuy dem ci jullikaay ba na nga waaj xusu zinatakum inda kulli masjid ngeen moytu tiset yeeg jiin yu foq yeeg jookin yeeg ah tenue de travail yu baree bari ngeen moytu ko ndax malaaka yi dañuy filmer ñuy julli bu ëllëgee ñu teg ko en différé ñëpp seetaan ko waaw te kuñ na ci woon président daf laa soxla booy dem solu waaw waaw ku ci ne woon président daf laa soxla booy dem solu booy dem solu de rawatina nag bu la wóoree na léegi caméraman yaag ñoom suñu ña nga fa war laa nga defaraat col ga waaw waaw nga defaraat col ga ndeysaan xuzu zinatakum inda kulli masjid waaye jëm ci jàkka ji defe na loolu la neex sol déedéet sunu borom teg ci ne lekk leen lekk leen waaw ngoog baat boobu dana neex ndaw ko ndaay yàlla ne lekk leen waaw mu ne naan leen lekk leen naan leen te bu leen yàq bu lekk ga ëpp bu naan ga ëpp ndax biir daa am lu mën a def ci lekk am lu mën naan ci def ci naan boo lekkee naan dafa am leneen lu fi nekk lu soxla te mooy noyyi nga bàyyi ko fi muy noyyee fa rubba maqmasatin charru min a tuxami yàlla bëggul kuy ëppal ci lekk bëggul kuy ëppal ci yàq innahu la yuhibbu al musrifin yàlla bëggul kuy yàq ci lekk bëggul kuy yàq ci naan booy lekk lekkal lu yem yonent bi daan wax ne ñun dey duñ lekk te xiifunu te bala noo suur bàyyi yàlla waxaat ci alxuraan qul man xarama zinatallahi lati axraja li ibaadihi wa tayibaati min risq qul hiya lilazina amanu yàlla nee na zinatallahi waaw muy taaram bi téréwu ko kenn bu kenn tere kenn lu fi rafet yàlla mën a yéene ko moom lu fi neex yéene ko moom bu deg lekk ak naan waaw tabarkalla lekk leen lu neex naan leen lu neex war leen lu rafet tëdd leen fu rafet sol leen col gu rafet lépp yéen ko moom qul hiya lilladina amanu yéen a ko moom tabarkalla mbokk yi sunu borom ni nuy wax ci wàllu temps yiñ ci war a taxawe bu nu dundee ba déglu waxtaanu àjjuma déglu waxtaanu samedi déglu waxtaanu dimaas ñëwaat ci temps tabaarakallaahu jéem koo jekkali jërë geen jëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi dañoo nekk ni taxaw yor seen i kayit bëgg leen firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncal leen ko ci wolof ñu ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii nga xam ne mooy sànni wax ji ci jaww ji ba waa mbir mën koo dégg yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara te soqali sunu sponsor bi C3S ba senegal gépp foo xool seen fa C3S ngeen naan doon coxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islah ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa